Yàlla Isa daanu na yow yëpp ay sàkket lan yoral ay néegi sàkket néeg yi daanu nga yow makkal alxuraan nga jël suñu doom góor jigéen ñëpp makkal ñoo ngi nekk ci tabax ñoo ngi nekk terrasse asan ji man deppam diw laa yoroon di jaay di jaay diw ba wàcce saa diw jenn waay ñëw mooma doon diw nga borom juróomi million topp ma ci ma ñëw fii ci sañ ji li boppam ma féete ak sëñ Touba bàyyi ko boppam ñu màggal fii toogu mbare gi mu takkub laax bari nañ la mën ak laax gi nii mu takk dama koy raxas ndax sama tilim gi sañ jilee ko a dindi ndax bala ñu maa bu gendarmerie may na ma nga ah, ah, ma daal di ñëw fi fii ma toll nii fang ministère de finance fangu jigéen ñi maa ko jiite. ku dem ba yore bor bay waaj a dugg kaso te demal nga nga yore ba di ko leble xam nga ne nga ak ku bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah rabbil alamin gannaaw bu nu sante yàlla sunu boroom di santaat Sëñ Sidi Moxtaar bu baax di ñaan sunu boroom yokk ay leeram bu baax a baax noo ngi fetliwaat sunu laxasaay ci Sëñ Jili Mbàkke di ko yeesluwaat sunu bopp bu baax a baax a baax di ko xamal ñun waa daayiratu Tuuba Ndukkuwan noo ngi ci gannaawam waxtu wu waxtu toll di ñaan sunu borom itam mu ñaanal ñu yàlla Euh, ñu fet laxasaay bu baax a baax a baax ñoo ngi koy xamal ne fu mu mën a nekk itam incha allahu rabbi ndigalam la ñuy déglu fu mu xes wootee amatuñu sago ci kàttanu yàlla fekk du li mu yitewoo dañ koo def te nam ko bëggee noo ngi yeesluwaat ci moom fuñ toll di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi bu baax a baax a baax di ko xamal ne daayira bi ñi ñëw ak ñi ñëwut ñëpp seen xol ñëw na seen xel ñëw na ñuy ñaan sunu borom itam nga may ñu kattan may ñu doole itam ba bu déwee jàmm lépp luñ fi war a def sunu borom mën loo ñu luñ lépp luñ fi war a def ñu ñu warloo ko loolu lañ lay ñaan Mbàkke di la yees di yeesluwaat sunu bopp bu baax a baax a baax di la fetliwaat itam sunu bopp ñun daal ñu ngi nii saa ne fii la foofa la foo ne du foofa foo du foofa noo ngi lay yeesalaat sunu bopp bu baax a baax a baax di la ñaanal sunu borom yàggal la fi kattanal la bu baax a baax a baax ba naal wii nga naal ci yoon wi sunu borom kaweel ko bu baax a baax a baax te fi nga ci nam a yëg itam ñu ànd kook yow yëg fa bu baax a baax a baax ñun ñooy sa ginnaaw fu mu di la jéggalu baax a baax a baax. salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di ñaanal sëñ Sidi yal na fi yàgg ànd ak wér di ñaan seen jiili mii yal na fi yàgg lool te wér na fi yàgg lool te wér maamam bi fii na yëpp yal na leen ëpp yal na leen sutu fan noo ngi sant bu baax yëg nañ ne yëg nañu bu baax buñ doon buñ doon juróom yóbbu na nañu téeméer kon noo ngi ñaan mu yàgg fi bu baax sëñ bi noo ngi sant bu baax di ñaan nga yàgg fi te ànd ak ak wér ak ak tal di ñaan it nga ñaanal nu sëñ mii yàlla dolli ko xiiwal dolli ko wér musal ko ci seytaan yi ndax kat seen xamante bii de yemul ci yéen donc daa wër tund woo wépp wépp kon noo ngi ñaan seen xamante bii yàlla bu ci seytaan yi dugg noo ngi ñaan yàlla bu ci seytaan yi dugg ñu ñaan nga ñaanal ko yàlla bu ko seytaan yi mënal dara ci barke yonent bi ak képp bépp jullit ak bépp jullit ci barke yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam barke Seexuna Seexul Xaadim dara jay maam Seexul Rahmaan jërëjëf noo ngi sant bu baax waa sëñ baa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant mu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax nee na mu ngi leen di balu ak di leen baal di ñaan yàlla boole ñu baal di leen sant nag te di leen gërëm di ñaan yàlla sunu boroom mu taxaw leen sàmm leen aar leen te nangu seen ab liggéey li ngeen di daj ci moom ak ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi nee na mu ngi koy gis bu baax mu ngi koy yëg bu baax nee na daara ji muy defal Sëñ Sidi Moxtaar nee na seenu ñaq dem na ci Moustapha yëg na ko yëg ma ko indi na ko ak yeneen ak yeneen ak kon nag sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax di ñaan yàlla nag ñu fekke ko at yu bëree bëri kenn bañ a manqué te yàlla nangu problème coono bu ngeen ci def yàlla nangu ko te barkeel la ca des defal leen jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxira jërë ngeen jëf sant na leen bu baax jërëjëfati bismillah amin amin amin alhamdulillah wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi xadimihi wa man tabi'a bi ihsan ila yawmi din euh, ñi ngi sant yàlla bu baax di julli yonent sallallahu alayhi wa sallam euh, tey sant bu baax di siyaare euh, xalif général mu Sëriñ yàlla na fi yàgg tey ñu ngi fii ci njaareem ci pàkk bu laab ñëw ci cantuk sëriñ Jiili Mbakke sëriñ Abdou Xaadir bu sëriñ Sidi al Moxtaar Mbakke yàlla ko yàlla doon leer ñëw tey eh, ngir teewe bis bi waaye tey dañ fay ñëw ñaari cër daanañ fi ñëw ndax sunu rakk la sunu xarit la suñu wëllëra ñu bokk lépp daanoon ñëw ci cant gi naka jekk waaye ren dafa am spécial lu ci am ndax ren da ko jagleel eh, sunu waajur sëriñ Xaadim Xawa ba mu nekkoon caatu suñu Baara moo tax tey ñu ñëw ngir teew ci ñaari yoon teew sunub cër waaye teewal cërub njabootu sëñ Xaadim Awa Ba ñu ñëw nag ci délégation boo xam ne sëñ Salim Mbacke moom sëñ Xaadim Awa Ba di xalifa bi yàlla na fi yàgg wér moo ñabal ma ànd ak délégation bu rëy ma mën cee lim sëñ Mouhamed sëñ Moustapha Mbacke mi nga xam ne ñoo ànd bi ñëw ak njaboot gi nga xam ñu ngi ci yoon war a jógee Touba incha allah rabbi war a agsi ah, ñu am mbégte nag ak kontaante eh, teewaale fi tamit ci turu kuréel gi nga xam mooy ay kuréel gi boole tarix nekk senegal yëpp te suñ jirim yi nekk ci kenn ndax moom li ko yitteel li ko ñor mooy liggéeyal maam Sëriñ ñëpp xam nañ ko ci bi ne bërët rek la bëggoon mooy di gindi nit ñi di leen delloo ci yàlla di leen jàngal diine di leen xamal ci loolu la nekk wax dëgg yàlla ci loolu laa ko xam. loolu dana am dana am cawarte lool ñëw fii ci màggal gi ci Jurbel ci Njaaréem nga xam ne fii la Sëriñ Tuubaa def lépp. kër euh, jumaa jaa ngi soriwul dara kër gu mag ngi fii Sëñ Tuubaa daanaka fi la fondé léppam fi la nekkoon résident résidence surveillée ba ba li mu wuy borom subhaana subhaana wa taala euh, kon nag bu fekkee ne ñun AIS dañuy sàmm patrimoine boobu mooy patrimoine suuf bi mag ñi ñëpp bàyyi euh, fan yi ñu gis wala at yi ñoo xam ne ñuy jug di xaw a xajamal lool wala di saboté wala bëgg ko fi jëlee mënuñu dañu dem dem ay kàddu yu doy waar yëkkati ko loolu lu lu lu Sénégal yëpp naqaru lu ma wax jullit kese képp ku di partenaire bi ab Sénégal rek war nga kon loolu naqarlu googu nag wala faj loolu état bi moo ci war a njëkk jiitu état du Sénégal moo ci war njëkk jiitu euh, Afrique Sud dañuy dañuy lu baax di naqar la fa am ndax mën na réew moo xam ne sax xëy na daa tombi ndax man dama fay dem depuis 2003 laa fa commencé daan dem dana mën xam waaye réew la moo xam xam naa ko baax ndax booba bari nay sénégalais macha allah waaye la fa gën a yéeme mooy taalibi Sëñ Tuubaa dañ fa bari lool dëkk boo fa dem am nañ kër Sëñ Tuubaa Johannesburg am nañ ñaari kër Sëñ xam ne millions yu baree bari lañ ko jënd man ñi ko ubbi ci laa ci laa bokk donc kon muy dëkk boo xam ne wax dëgg fa yàlla ah, euh, euh, ña ngi fay jàng alxuraan ña ngi fay jàng xasida kon lu mel ni bu fa amee day nekk tiis tiis bu métti métti boo xam ne doon nañ ko seen xaneen ci réew yi nga xam ne ay réew yi nasaraan lañ wala ay réew ñoo xam bokk nañ du Afrique foofu lañ ko doon séentoo waaye mu demee ba africain ñi may jug di mën xataal moroom africain ba di ko rey ci koo xam ne bokk leen am réew daa ñëw sa réew lu mel noonu loolu wax dëgg yàlla damay wax ne président africain yëpp yor a wala boog population yi ñëpp peuple yi produit réew mu mënti doon def marche marche naqaru dem ba ci ambassade Afrique Sud ya fa nekk xamal leen ne leen kat nañu wax ak seenu askan ndax lii du première fois maanaam wax bii mooy troisième fois ñu def bare bare bare ñu ñëwaat rayaat étranger yi tey li fan yi nag wax dëgg yàlla bu nit ñi taxul ndax booba lañ ko woon faj daawaati jéeg daawaati ba mu amee waaye ñàkk a ñu fexe na lañ ko réglé ba loolu du amati te loolu na waa sud africain yi ñoo mën a njëkk gis seen bopp ndax jamono apartheid bi gis ngeen ñëpp lañ daan dimbali ñëpp lañ daan jàppale ndax di solidarité ak ñoom kon bi nee ba loolu ñoom xamuñu lu mel noonu dama dem ba africain yi leen doon jàpp ñu dal seen kaw loolu responsabilité état ba la état seen état yi responsabilité euh, seen seen intellectuel yi fa nekk la ak seen ak seen autorité yi ak seen maanaam armée bi ñoom ñoo leen waroon xamal bu baax a baax baax xam ne africains yi seen i mbokk lañ duñ seen i ennemi duñ seen i wujj donc jàpp naa loolu bu ñu leen sensibiliser xamal leen ko kon lu mel ni du du donc daal ñëpp nga koy naqar di ñaan yàlla yàlla na ayoo yem foofu euh, yàlla muccal sénégalais fi nekk ak étranger fi di jeexal rek loo xam ne euh, moom laa bëgg a jeexale muy euh, fan yi gis ngeen sunu mbokk moomu ñuy wax Makhtar Sarr Makhtar Sarr Sénégal bi yaakaar na dégg ngeen ko yéen ñëpp Makhtar Sarr di jàmbaar yoo xam ne xeex bi ñuy xeex mu ngi taxawu tasaw ak liggéeyal mag ñu baax kenn jiitu ko ci mi ngi ci biir mën a wax ne kuréel gi di AIS mu boole tarix yi nekk Sénégal yépp ñu njëkk jënd carte membre bi nekkee suñu bureau bi fële ci Dakar macha allah tabarakal mu yàgg taxawu tasawuf di ko défendre di ko leeral rawatina ci yoonu tarix ak tijaaniya Makhtar Sarr moom nag ñu gis ne fan yi wax dëgg yàlla jug na liggéey liggéey boo xam ne jug na liggéey liggéey boo xam ne ñëpp la ko defal liggéey boo xam ne mbooleem ku xalif généraux mbooleem kuy tariqa ah, ah, maanaam maanaam maanaam taso yu nekk ñoom defal na leen ko ñu gis na nag loolu am na ci eh, ay menaces am na ci ay attaques yoo xam ne ñu ngi ko jëmale ci kaw wala nag wax dëgg yàlla ñun en tant que AIS kuréel boole tariqa yi nekk Sénégal yëpp ñu ngi ko wax ne ñu ngi ànd ak moom ci kanam ci gannaaw ci féppam di solidarité ak moom di wax ne ñun ñun ñëpp la ko àndal ñun ñëpp la ko nekkal ndax ñun suñu liggéey du dara lu dul sàmm tasawuf sàmm li fi mag ñu baax ñu bàyyi loolu nag day am ay défi interne am am défi externe défi interne mooy ñi nga xam ne dañoo bokk ci biir di ko mbubboo ba pare def na ko suñu noonu ñoo ñun ñoo war a taxaw wëccax seen noonu ak ñi nga xam ne dañuy attaqué ci biti tamit ñu taxaw ne leen du ngeen attaqué kon bu fekkee daa am ñekk ci biir def na ko suñu noonu mu jug di ko dénoncé boo ko jëlee andi ay menaces loolu jot na képp kuy dund lislaam conféré wala képp kuy ab jullit nga taxaw pour ànd moom ci lu mel noonu ba lépp lu ko ñu taxaw ba ba loolu du ko wokk wala wala boog lu ko wokk xuriñu waaw lu ko waaw solidarité ba lu ko wokk kon boobaa nañu xuri waaye waruñoo seetaan sax ba dara di ko wokk donc kon loolu mooy message bi nga xam ne bëgg naa profité fii ci Diourbel fii ci Njaareem di ko lancé di wax ne AIS yëpp ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ nekkal ñi ci gannaaw Makhtar Sarr parce que yéen ànd ak moom xeex boobu ndax li muy def ñun la koy defal ñu ñuy def moom lañ ko defal di ñaan yàlla yàlla ko yàlla muccal ak jàmbaar la te mi ngi salaati wa taslimi alayhi